je dis man du ma wax ak politiciens yi par exemple violence politique bi am suñ ma interpellé je dis j'ai rien à dire aux politiciens. crise sociétale. parce que ku ñàkk ful ci sa bopp surtout am ndaw nga xam ne société bi soxla na la mais pas ci xeex a soxna la pour la construction de la nation say wajur soxla nañ la jur nañ la yar la toppatoo la ba nga toll ni nga toll ñu yaakaar nga war leen mën a dimbali yow amoo benn fulla sa bopp lu dul benn politicien boo xam ne ci jamono ji mu lay yónni pour nga xeexal ko moom doomam ma nga kanadaa wala États-Unis tëdd nga dem di rey sa bopp ci loolu ñooñu lañu war a waxal tey man awma je n'ai rien naa dire aux politiciens politiciens yi sikk nañu ba noppi munoo dara si ñoom mais jeunes yi leen di topp au nom de quoi et pourquoi di génne ay jaasi di tëb di dal ci loo xam ne politique du loolu politique débat d'idées la ku nekk na ñëw ak programme ku nekk na ñëw ne askan wi lii mooy sama mbëbët ci askan wi ku nekk toog déglu parce que yàlla may na ñëpp xel. Mhm. seet li la gënal bésu vote nga dem vote dem ñibbi. loolu lan la ci ay xeex ak kii li. may wax nag particulièrement la jeunesse amul exception tàkku leen jóg dañuy dox dem pale jële fa Macky Sall dinañu dox pale jële fa Macky sal ci nii wala ci nële. c'est important Nous, ñi la jeunesse ce n'est pas l'âge des plaisirs mais c'est celui des combats les jeunes doivent porter tous les combats mais dans la discipline dans le respect des lois et des institutions bàyyi saaga wax yu ñaaw lepp lo xamante rek si fugg la jëm mais ñu and ak seen xel privilégé waxtaan ak formation ba paré di wax ak mag ñi surtout c'est important c'était mon message de ce soir. <laughs> c'était ton message de ce soir soyez mobilisés le combat s'annonce mortel le mot n'est pas de trop famille Ousmane Sonko toutes réunies ñom ñu ngi ni di dund bi ak euh, ci vitre euh, euh, vitre plutôt ñom tamit ñu ngi nous loolu on wa Sénégal diaspora di nuyu wa Bayern bi ma dëkk di ñëw sur les mercredis de Sahar le Sénégalais d'Allemagne Euh, di war a changer nag sama chronique parce que leneen laa préparé woon mais le temps euh, ak l'actualité moo tax may ñëw fii fi may ñëw nag fenn la rek du sori te du yàgg muy waxoon naa fi ci gannaaw ne boo bëggee jiite ay nit nga rey leen ba ñu jeex dama xamul ñan ngay jiite Ousmane Sonko. Khalifa Sall Déthié Fall suma maam Habib bulan fonto leen fontoo sénégalais yi ay kasaw-kasaw wala ay dof wala ña nga xamante wala xamuñ lu bari yéen mënu leen nekk fii su ngeen defee lii xuloo biir su ngeen jeunesse léegi nag man du ma sa wax bu benn jeune génn déedéet yegg du waxuma parce que jeunes yi ñoom xam nañ li ñuy def parce que keroog ba gaayen bi duggee Médina am na lu ko dal damay wax ne la jeunesse de mon pays Ousmane Sonko doomam am na âge voté doomam magum jëmm la majeur na Ousmane Sonko am na yeneen doom ya nga xamante ne ñoom mag doomu Barthélémy Diaz yi Barthélémy Diaz génne woon keroog bañ ko convoqué maam Habib si am na ay sët ya nga xam ne majeur nañu xalifa Sall am na sët yu majeur Déthié am na ay doom yu mag dama ne bu dee da ngeen di oote fit rek fit ak mbon ak bandi ak assassin ak saay-saay dama ne sortez vos enfants teg leen au premier plan sortez vos femmes ba ci seen mbindaan sax bu leen ko bàyyi seen kër Ousmane Sonko yow yaa ootewaat mortal combat gannaaw ba 14 morts dee seeni parents keroog ba nga taxawee jouer sa théâtre bi njoona ba tey nga fàtte parents yi xale yooyu décédé ngay ootewaat encore léegi ne nag appel à la résurrection yow yaa ko wax yow yaa ko signé yow yaa ko kii dans un pays normal Ousmane Sonko waroon fanaan démb sa kër. et puis Ousmane Sonko kañ ngay bàyyi di ñu fenn kañ nga ñuy wax dëgg Ousmane Sonko quand est-ce ngay toog rek Ousmane Sonko nga jël benn xaaju seconde rek nga wax ko Sénégalais yu dëgg toog sa biir waañ sa kër à Dakar naan yaa ngi Ziguinchor Ousmane Sonko Ousmane Sonko sonal nga ñu arrête de nous prendre comme des comme des comme ñun duñ sa chiffon Ousmane Sonko. keroog ba ngay dem boo Beauté auto oo jeunesse bi àndoog garde corps keroog ba ngay dem Ndakaaru oo jeunesse bi àndoog garde corps Ousmane Sonko ainsi de suite ainsi de suite bu ñu sonal yow nag rus naa lool ci yow maam Habib Sy yow sa tur bi sax dañ ko waroon changé ak sa sant bi ndax sax mënuma wax ci yow di wax lu ñaaw ndax tur bi ak sant bi Khalifa Sall Khalifa Sall da nga set da nga sell da nga sell xalifa Sall. Déthié Fall ku la dégg ngay wax rek Idriss sek lay gis mais yeen ñi lan mo leen jot xana dañu dox leen dañ leen jox lu ngeen naan wala dañ leen raay ben safara bu ngeen yëgul ba yeen ngeen bëgg yaq yàq Sénégal ma xamal leen ben affaire li ngeen di def ni ñun yag na ko wax man gën yeen surtout nak yow Ousmane Sonko xalif généraux yi ñoom nga bëgg a dindi senegaal ñoom nga ne yow boo fi nekkee da leen di dindi ba ñu set wecc lu toll ni sëñ Mountakha Mbacké nga xamante ne umma islamique bi yépp a ko nangul maanduteem ñoo ko nangul xam-xamam di war a ñëw Sénégal ngeen waroon na teer seen lépp ne tekk jàpp seen jàmbur ba mu ñëw def fi ñetti fanam ngeen gunge ko ñaari fan muy juróomi fan ngeen jàngee ci dara ngeen ne nak période bobu ngeen bëgg a jeunesse la jeunesse sorté sorté jakarlo ak seuti Khalifa sali seuti abib si Sy Ousmane Sonko yi ak ay ak seeni seeni njabot sorté ngeen jakarlo ak ñoom Sénégal kenn momuko Ousmane Sonko barki demb nga juddu yow mëno juddu barki demb ne da nga yàq Sénégal yow Ousmane Sonko yow yow yay kan tu Tiki kii man lool la bëgg xam yow yaay kan yow yaay kan ba buñ ñu rek nga naan lool door fi amateeg ay yu kenn xamul ñeñe ñeñe ñeñe ñeñe gaay ba benen yoon c'est que jubluwaay woote comprendre parce que egguñu ci moment bu jar génn pour taal parce que néew ñu kenn sa list doo dem xanaa waa gëm sa bopp ak ñoom Fadel Barok ñooñu. mais bu fekkee dañ la yow sa liste indi ñëw dugal ko nga ñëw dugal ko jaxasi tur yi ñun la góor ak jigéen nga indi ñaari góor wala ñetti jigéen. loolu aajuwul woote fitna. benn ñaari bi ci des euh, mooy li may wax ci politique yi. sañ-sañ bi bi ñu leen jox moo ëpp sañ-sañ bi ñu leen jox moo jaaduwul. Et... Euh, lika c'est sabab moy, militants yi nek ci sen ginnaw xam nga euh, ni niñ ko wolof di lébé ma ko ku gisul bu la ci ci militant amul leader bu am fitu affronté ñetti police wala ñaar mais militants yi donc respect militant bu militant yi topé si ginnaw gëm la di la jimbal dimbali espoir te ngay xëy ñuy xey ngay gont ñuy gont de kuñu sa kër lekkuñu sa dépense. Mhm. da nga leen présenter benn idéologie wala benn dynamique benn projet ñu gëm ko di la ci jàppale pour changement am pourquoi fitna. Mhm. Sénégal am Sénégal kenn du fi régler dara ak fitna parce que kenn du la ci fekk si nit ñi taluñu fitna taluñu xeexoo taluñu li fi nekk ci souffrance doy na. Mhm. De gis nga bo xébé li nga am démocratie gis nga sañ sañ woté fitna parce que démocratie mo tax rek. di sañ am sañ-sañu di wax ni mu ñu ci président deful nangam ak nangam Demu fi la wax ni bi fay waxé ba avis carrément à 100 démocratie. réew yi nga xamni euh, def ko ko amul démocratie nga mm-hmm. fitna moo fi wàññi démocratie boobu billaay Khadi. yi mhm. ku fitna tax nga foog ni ful fitna jooju mo len noppal ci te trompe lourdement mhm. fitna kumu mu mhm. fitna jooju ngay bàyyi ci deun nit ñi dañuy taxaw di di di di di xal sa cin ñor nga yak. mbaa ñu yàqal ko seen bop. nit ñi taluñu fitna mais encore une fois euh père de famille nañuy mën di décortiquer discours politique yi. te di ko tojal seeni ay njaboot. ñu bëri ci li ñuy wax ay discours. billaahi gëmuñu ko. amuñu courage bi amuñu détermination bi amuñu fit bi amuñu mbooloo bi amuñu position bi. Mhm. gëmuñu. bëri na lu ñuy wax ne Benno Bokk Yaakaar ci parrainage am loolu tamit bëgg naa nit ñi xam ci leer. yenn saay damay wax ci lu leer loo xamante ne jarul nga jàng droit wala nga def leneen maa ngi koy tooñe dem benn nit ma ko bu ñu nee warugar damay tooñ jigéen ñi parce que boo nee jigéen waru warugar da ngay takki jabar ñu foog ne da ngay da nga misogyne booy takki góor wala ngay takki jabar comme jamono ji lépp da nga koy leeral warugar bi ngay joxe buñ la nee téeméeri junni la nga dem ñu ne la diggante téeméeri junni ak téeméeri junni ak juróom fukk muy diggante cinq ak cinq cent cinquante ki nga xamne ne wul ñu ne ko may nañ la ñaari fan nga motali wa léegi ki ëppal junni mom dañ koy dax loolu yenu na mana ci xel dañuy laaj waru gar 550 000 yow nga joxe 555 000 ñu dax la ki nga xamne ne wul 500 000 ñu ne ko may nañ la ñaari fan nga dem motali donc amna lo xamantene xel waru ko mën nangu parrainage bu bennoo bokk man na te respecté na réglementation bi loolu nañ ko bàyyi xel ay waxi caaxaan kessa la leneen li nag mooy taxawaay bi nga xamantene ñun waa Dakar dañ ko war a am su ma ñëwee Médina nekk premier arrondissement Dakar war na am seede bu ma def ci président de la République bi ma nekkee ministre de l'urbanisme daf ma ne man de wax dëgg yàlla dakaar am naa fi yéene def ay projet yoo xamante ne wax dëgg yàlla ci histoire Dakar mérité na ko te lu ci bëri benn bi corniche bi la beneen bi assainissement des eaux usées gis ngeen ko biir Médina travaux yi ñu fiy def yëpp ak leneen li nga xamante ne tamit mooy. stade Assane Diouf ndaxte ñun bañ nekkee gone bu ñu daan seetaani euh, entraînement kusum yéen moom waa Dames yooyu terrain yi lañ leen daan bàyyil mais ñun dañu amoon terrain fële stade Assane Diouf fa lañ dem di seetaan entraînement kusum le matin seetaan xandaalu l' après midi président ne man bu doon sama sago ñu defar corniche bi mais coow li nga xam ne am na diggante chinois yi ak waa rëbës ñu fay ko te li ma doon gënal mooy rëbës li ma wax ñu amaat seen terrain li ma bëgg tamit mooy chinois yi comme ñoom dañu am seen i droit tàmbali seen i projet naka lañ mën a def ñoom it ñu yeggali seen projet xam lu jafe la mais président di ci liggéey di ci liggéey di ci liggéey ba nga xam ne tey boo demee stade Assane Diouf jël nañ 3000 mètres carrés yokk ko ci mosquée omarienne mooy jumaa ji ñuy tabax jël un hectare joxaat ko waa Rebeuss mairie Dakar Plateau dina tabaxaat terrain ba pare chinois yi ñu bàyyi leen beneen partie ba pare utal leen leneen defe naa ku def loolu yéene nga waa Médina yéene nga waa Rebeuss te yéene nga waa Ndakaaru donc loolu muy taxawaayu président ci Ndakaaru ak ci Médina ñun nag ni ko euh, Bamba waxee boobu ba léegi ak ñi fi jël kàddu yëpp coono yi nga xam ne président de la république daj na ko ci ndakaaru coono yi nga xamante ne maire yi daj nañ ko ci ndakaaru ku ci ne di xool noo mën a defar di pavé lu ci ne ñu defar ñuy seetaan ay nit yoo ne ils sont irresponsables jëlale naa sax bakkan yi ngeen fi tudd léegi ndaxte loolu xel warul sax xalaat di taxaw di ko bàkkoo naan li fi amoon ndaxte ñàkk xel foofu la tàmbalee ay bakkan yu rot ay bagage yu jàmbur yu yàqu ay commerçant yoo xamante ne mënatuñ liggéey ay magasin jàmbur yu ñu yàqu nit ñi ñëw taxaw naan la li fi amoon te li fi amoon ñun ñëpp xam nañ ne dafa am lu ci rax bu ñu waxee dëgg dafa am lu ci rax du waa Ndakaar ñoo génn di def ñaawteef yooyu donc taxawaay boobu ñu war a am ñun mooy taxawaayu fulla muy taxawaayu yeewu ndaxte nit ñi ci li ñu nekk mooy dox ci li li li nga xam ne mooy seen bëgg-bëgg ak seen bakkan boo seetloo ci vidéo yi di ngeen ko gis ci réseaux koo xamante ne ñaari at ci ginnaaw bimu amul benn problème daf la daan wax naan man de ndaw bu ma gis dama la naan élection bu jotee demal voté toog sa kër tànnal ki la neex waaye bul xuloo bul xeex léegi boo demee ba yow am jafe-jafe ak justice boo demee ba yow def say njombe yoo xamante ne tax na ba sa liste irrecevable nga ne waaw kon gone yi léegi bu leen toogati ba xaar élection génn leen ñu xeex génn leen ñu yàq loolu moo war a tax ñun nitu ndakaaru ñu ñu ñu yeewu ñu am dégg-dégg te xam ne am na ñoo xam ne bu ñu leen déggalee yàq réew mi la ñuy def amuñu kersawu ku ñu xulool daaw ànd ak yow ren dégg ngeen li ñuy wax Ablaye Wade président yi fi jiitu dañ leen war a rey boo jaaxlee dem ci ñoom boo xëyee kilifa diine yi joxoo leen cër nu la neex nga doxalee loolu ci politique ñun war ñu ko nangu. système bi leneen nag mooy li bàmba wax mooy fulla te loolu defe naa waa Medina am nañ ko waa Ndakaaru am nañ ko mooy am taxawaay ba nga xam ne ñun suñu njaboot kenn du ci def naka sudul noonu waaye suñu dëkk tamit kenn du ko yàq. te loolu nag defe naa ne jarul wax ju bari ku gis toogaay bi xam ne nit ñi toog nañ toogaay bi ci war te matuwaay bi ci am moo xam fulla bi mu am bi fulla bi mu laaj fit bi mu laaj ak taxawaay bi mu laaj bés bu ko jotee di ngeen ñu ci gis asalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf ne di ko tabax ndakaaro yow nga bàyyi sa Ziguinchor xëccoo ko pour defar ko Habib si bàyyi Linguèram ngeen di dakaar ngeen di yàq xanaa ñu Dakar dañoo ñàkk fayda ñun dinañ jël suñuy alal def ko ci trottoir ci ay pavé ci ay lampe

di woote insurrection te dara de chaque fois nga défier la loi même Nan man dematuma tribunal signé du temps le passé pourquoi toujours vouloir défier la loi pour un pour quelqu'un boo xam nga tu aspires diriger ce pays mais tu dois être un exemple mais tu n'es exemple sur rien du tout te li koy wane Quand bi fait def conférence de presse lu mu wax ma jàmbal dangaa fen ba ñuul moo tax jigéen ñu ñuul ñu ni ko pourquoi kon jigéen ñun ñu ñuul ñu ay fenkat lañu mu tunni tamit ni société civile wax ci li mu ciy wax société civile bi fippu kon koo xam ne saa yu waxee toj toj lay def kooku mënul yor réew mi ndakaaru nag du Sweet Beauté Sweet boote bu la neexee lu la neex def ba sumee ko mais ndakaaru gi ku fi sumee ko ñu caw la kon boog Abdou Karim ma jox la kàddu bi moo leen gënal Senegal dëkk bu metti la bo waxe ñu ne dafa dëgër bo waxe ñu ne wax ji neexul ñi nga xam ne tànk ki yor bant ki yor yet gi tank mu yor yetam di dóore fi ñu toog duñ fu duñ fa bu bouger duñ wax de waye ki ñi dóor bu fiqato rek ñu ne ñu fit fitna ngi ni may wax yeen jeunesse senegal bu leen déglu ñoo yeen intellectuel sénégal yi bu leen ñoo yéen transporteur yi commerçants yi yéen euh, diaspora yéen keneen ak keneen bu ngeen déglu ñooñu parce que réew mu musa baax rek dafa am génération bu jël responsabilité am foo dégg ñu ne révolution dafa am ñu jël seen responsabilité et je l'assume waaw kon peuple Sénégal bi daal ñooy topp ci yéen bu ngeen defee seen erreur ñu wàcc mbedd bu deewal xeex deewal leen quoi quatorze jeunes yi dee keroog mars ñun ñu wàcc mbedd bi di def ay live di rey suñu bopp di man di bàyyi xale yu ndaw ay nit yooyu ñoom Sonko mën nañu wax ñi nga xamante moo di aaw bi ak ñaareel bi ñu ngi si kaw gis nga moo sol lu bula li kenn ki moo lu bula li instant gis nga muy siñ daa mel ni bég na daa mel ni bég na <laughs> en tout cas nañ vraiment gars yi bég nañ Alaaji Cheikh fi nga. fàttaliku wala ñaari ci ginnaaw amoon nañ lu xaw a mel ni ci Linguère booba ñeenti bébé ñoo jotoon faatu amoon nañ ko ci benn clinique.

accident bu melni lool si Abdal lañ koy mëna défé ñepp ñu ko a saytu déjà ñu ngi ci liggéey muy inspection générale d'État muy wa division de investigation criminelle ñu tuddee ko dig muy tam ay service technique, yi nga xamné comme COSUEL déjà ñu ngi fi protection civile sapeur pompier ak képp ko xamné amna xam-xam buy wara a Euh, service bi hôpital bi ministère bi ak réew mi si dëgg-dëgg ñu xam lan moo waral li ndax accident boo gis rek am na cause bu ko bu ko bu ko sooke loolu nag buñ ko xamul tànk xamuñu ko loolu mooy wane ne accident bu mel noon mën na amal kon loolu laa bëgg ñu ordonné liggéey bi fexe ba lépp lu ci war ñu def ko

deuil national nag mooy ñetti fan yoo xam ne dañu dàkkal lépp luy manifestation ak animation pour que réew mi bokk tiis bi ndax ñu amaat conscience li nga xam ne moom lañu bokk te war a am taxawaay bu mat kenn ku nekk ci sa liggéey kenn ku ne ci sa xalaat nga sóoraale sa morom sóoraale réew mi loolu mooy sensu deuil national Euh, moo taxit mënuma woon toog ci biti lu dul ñëw bokk ko ak Sénégal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di fas yéene yàgg léegi ci njaboot bi pour jaale leen ci sama tur ak turu Sénégal jërë ngeen jëf. mu neex nga wóolu ko la neex mais man laa man ça n'engage que moi mais gars yi wóolu ma si kenn laa ci wóolu ay ñoom sonkoo yooyu thème bi ah dafa am ñoo xam ne ay capitaine Touré yu bëri ñoo fa am dañoo dem ba infiltrer système euh, euh, état bi dañoo dem ba infiltrer ko gis ngeen keroog Ousmane Sonko bi mu génnee muy menacé naan ay deux cent mille xam na ni mënul génne kenn xam ngeen ce qui s'est passé réellement ci biir système bi la ko gars yi soufflé ni li nar am après résultat yi que le lendemain le lendemain que conseil constitutionnel dina jël telle décision am nga inside job ci biir site dañ ko ko soufflé Moi tax moom mu fen leen ne len mo ngi Ziguinchor nekete day fen mo ngi won Dakar mais pour dire que gars yi nu ñu nekkee saay-saay ni de ñoom seen dañu nekk ay saay-saay xolam mu ñëkënte génne menacer pour ñu né mom motax Macky Sall arrière ok ah dem leen xool le message de Guy Marius Sagna xaaral ma génne ko liiral len ko euh, parce que euh, xawma ndax yor naa ko Guy Marius en 2012 2012 les parenthèses pour ngeen pour waxuma nak kenn mo defagum problème xamaguñu par rapport ak li am kii xamaguñu mais dama ni pour que ngeen tout le monde est suspect bu leen ñëw rek naan way Macky Sall ay Diouf sax non non affaire bi demeewul non. de gars yi ñoo gën dangereux quoi man ñima gis ak lima gis ci ñom wallahi ñoo gëna a dangereux mais tengen yeen te ngeen ci bëtt kër nañu waxan dëgg ah, ngeen bëtt euh, ci ci ci terre bi terre bi te ngeen ci bëtt dañoo dag fi li loolu xolé musiba bobu bu accident amone ki def loolu mënul ñëwaat encore dem tali tali hôpital amin créé créé ray ay liir ku am xolu def dem fi lu terre bi ku am xol bobu pour nit ñu bari wallahi musiba yalla rek moñ ci musal koku est ce que amul xolu xolu dem mais def ay créer court-circuit parce que xam na ni foofu oxygène moo fa am parce que lan moo gën a ok yow nga toogoon par exemple nga ne da ngay saboter quoi mais nga def benn benn euh, euh, euh, kii ba bëgg def benn attentat quoi entre guillemets entre guillemets pour. ay bâtiment yu bees tàkk lépp am ay équipement yu bees ak yu mucc ay béréb bii mooy hôpital régional bu Kédougou mu doon béréb bi nga xamante ne. Nyi fi tek senitan kan gir vizite ko, nyepo kontan ti ligye yi. Mbet te ak kontan lanyou amsi sityasyon bi. Paske gisnen yu defnen yu vizit opital bi. Euh, gisnen yu vreman konstruksyon euh, bi. Rafet nou lol, waye amnatamit ay ekipman. Ekipman yu beri, yu modern. Yow hamne euh, bokne ti ekipman yu gen modern di Senegal. loolu nag mooy wone rek président de la république dafa euh, dooleel lu muy wax équité territoriale. fii mën nañ fi def lépp lu jëm ci wàllum consultation générale wàllum césarienne gynécologie pédiatrie kinésithérapie ak yeneen ak yeneen mu doon loo xamante ni waa Kédougou yàgg nañ di ko laaj. te amuñu ko. soo xoolee nag par rapport ak ñun bi ñu fiy ñëw ak lu ñu fi fekk bon fekk nu fi woon hôpital boo xamante ne am na niveau bi centre de santé nañ fekkoon fii Kédougou donc suite à ça on a on nous a laaj na ñu def hôpital boo xamante ne niveau 2 la. donc fii waa Kédougou hôpital moom nekk na loo xam ne atu la loo xam ne baax na si ñoom trop parce que di leen wàcceel lu bëree bëri par rapport ak yeneen kii yi. Kédougou nekkee région ci atum 2008 ba léegi gu léet mu am hôpital régional. njiit rew Macky Sall moom ci bopam mo taxaw ngir rek rendre justice région Kédougou bi yeb gis nañ ñu vraiment que hôpital bu mu ci ayib la te tabax nañ ko tabax bo xamni tabax bu rafet la et respecté nañu norme de construction yeb mu nek yéene bo xamni vraiment dafa nek yéene bo xamni président de la république daf ko def pour Kédougou. parce que man mi nek hôpital yi gisuma musum gaaw ma gis hôpital bu rafetee ni ak bu setee ni te lolou dañ koy santé président de la république bi nga xamni moom régler l'équité équité territoriale parce que c'est important parce que Kédougou bi mu nekkee région ba a un hôpital. Benen dogal le président Macky Sall jël ci conseil des ministres le 20 janvier bi a la xamle l'établissement dinañ établissement bi hôpital régional Ahmad Dansokho bu Kédougou loolee ce rek mën rendre hommage. À la sortie de Sédhiou sur la route de Massoum se dresse le nouvel hôpital de la capitale du Pakao une infrastructure moderne de dernière génération, un bijou architectural qui est au stade de finition. Les travaux ont bien avancé. Donc là, actuellement, si on parle de pourcentage, on peut dire qu'on est à 95% d'avancement. Donc quand, je dis 95%, c'est le gros œuvre et le second œuvre. Donc euh, actuellement, ça avance bien. Le centre hospitalier Amoutidjanba de Sédio est un hôpital de niveau 2 d'une capacité de 150 lits avec des spécialités différentes. C'est un hôpital de type euh, général qui compte 18, euh, spécialités, médicales, chirurgicales et médico-techniques. Donc nous avons euh, des services de cardiologie, de médecine interne, de pédiatrie, d'ORL, de chirurgie générale, orthopédie infrastructure moderne et dotée d'équipements de dernière génération. Elle va compléter l'offre de soins au niveau de la zone sud. Si je prends l'exemple de, de l'imagerie, cet hôpital va disposer d'un scanner, il y a l'équipement de, mammographie, il y a deux tables de radio, une table numérique et une table euh, conventionnelle. Donc nous avons un bloc opératoire avec quatre salles euh, opératoires. Il y a un service de, de réanimation avec 10 lits de réanimation. Donc au niveau de, l'ORL, de l'odonto, le service bucco-dentaire, il y a vraiment des équipements de, de pointe. Nous avons également un service de maternité gynéco qui, qui est là, qui dispose d'un bloc opératoire et, euh, autonome. Donc au niveau des, des salles d'hospitalisation aussi, on constate que vraiment c'est pour ce qui concerne l'hébergement, les malades sont dans, seront dans d'excellentes conditions. C'est un bijou qui a été construit, qui a été réalisé dans la région. Déjà, ça règle beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, avec l'ouverture prochaine de cet hôpital, n'est-ce pas, nos malades ne vont plus aller se faire soigner à Ziguinchor ou à Kolda, mais ils vont, ils vont rester ici, se prendre en charge. En dehors même de, du niveau national, n'est-ce pas Nous attendons à recevoir des patients nous venant des pays limitrophes. Véritablement, c'est en quelque sorte une révolution sur le plan sanitaire. La construction de l'hôpital de Sédio répond à un besoin longtemps exprimé par les populations. Aujourd'hui, cet hôpital fait la fierté de toute une région et même au-delà. On attendait déjà cette euh, infrastructure depuis longtemps. Aujourd'hui, n'est-ce pas, avec la fin des travaux de l'EPS 2, véritablement, c'est en tout cas c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Et ce sentiment de satisfaction également, c'est le même sentiment qu'éprouvent les populations euh, de toute la région de Sédou. C'est un hôpital qui fait la fierté des populations de Sédou, mais c'est un hôpital qui fait également la fierté des praticiens qui vont évoluer dans cet hôpital-là. Parce que vraiment, il n'y a rien de plus motivant que d'évoluer dans un cadre où vous avez vraiment des équipements de pointe donc vous allez, ces, équipements qui sont là-bas vont permettre aux, médecins d'exercer leur art dans les meilleures conditions. Tous ceux qui euh, visitent cet hôpital tombent sous, son charme. Le centre hospitalier Amotiyan de Seyou va être bientôt réceptionné. Une infrastructure moderne d'une importance capitale qui va faire de la région de Seyou un hub sanitaire. Salam alaikum, établissement public sanitaire de Ndaw Waouh

excellence gis neen investissement yi ñu ngi bu baax a baax. ànd ko feeg a jaar ma ne ko nekk leen bitim réew yéen ngi Tuubaa de ma ne ko nekk leen bitim réew yéen ngi Tuubaa de capital Cheikh Bamba bu président Macky Sall liggéey day ndeysaan nekk leen bitim a ngi Tuubaa capital Cheikh Ahmadou Bamba ak honorable Mor Ngaye day ndeysaan honorable lan nga jàngat fii hmm. sant rek wallaay dëgg yàlla hmm. sant ñaan daal hmm. mu sedd sedd guy suñu borom ñëpp gis seen bopp li moom yéen a dëgg <coughs> sant daal ñi nga xam ne ñoo ñoom lay liggéey loolu moom yéene ju rëy rëy la mm. liggéey bu rëy rëy li man mm. daanaa ko romb ni musuma jàpp ni yëf yi agsi na fii waaw sant yàlla sant sëñ mm. ñaanal président daal bi suñu borom àggale yéene jërëjëf nekk leen bitim réew ba ngi Touba Cheikh Bamba euh, la ci bi lay ndeysaan léegi bu ba tool fee merci waay ci hôpital bi la président Sall xool avancement Sénégal ci domaine nag voie de communication économie croissance inclusion santé de la population la paix la sécurité la diplomatie nga le Sénégal sous le président Macky Sall est un pays en avant nga xamni opposition tapala la opposition de voyou la opposition la yo xamni ay fenkat lañ parce que ñom ci bopam ñooñu waxoon niñu jël rajo yi jël télé yi di tympaniser sénégalais naan du ma ànd ak ab Ablaye Wade parce que dafa ne ci système. Hmm. du ma ànd ak Khalifa Sall du ànd ak Sika tey il se permet ñoom ñu dem seeyal seen bopp comme suukar ni mu seeyee ci ndox ñii war nañ askan wi fen nañ askan wi c'est des menteurs aussi war nañu nag jël ay matuwaay yu am solo ci ñii nga xam ni ñoom ñooy xëccoo réew mi. Hmm. parce que ay vayu lañ. Hmm. li koy li koy firndeel mooy barki démb li xew ci teer bi. demb xam nga ni waaye yeewi askan wi ñoo dem dagg fii lu tey bëgg nit ñi accidenté réew mi nekk ci crise mondiale adduna bi tukki li xew Ukraine du am fii ñii bu ñu leen toppee dañuy taal réew mi. nañu ma ne preuve yi dina leer parce que enquête yi mu ngi dem. Mm. ñoom bu ñu waxee stade ñu ni baaxul lu ñu wax train ñu baax. kenn amul intérêt tey ñi dëkk Dakar dëkk ci région de Dakar xam nga ni ñooñu duñ ko dagg mais ay bandi lañ ay wëyu lañ lu président Macky Sall def ñu di lool léegi nag nag xam ni l'heure du combat a sonné dootuñu nangu ndegam ñoom ay saagakat lañ daañ leen fekk ci seen manin ci biir waxam kon maa ngi door am kon nag léegi nag maa ngi doog doogo nangoo ñaan ndax li ci wees woon moom do ñaan doyuma ci ngi door nak nango nangoo ñaan. maa ngi door a nag nangoo ñaan. président ngi ñaan. maa borom. mii def di dindi. ci barkib serigne bi. mu may la jàmm. maa ngi ñaan. suñu borom. suma na naree woteel ku dul ki yalla na ma yàlla rey. kii bi def li lepp may woteel keneen laa la xoolal xoolal ma ma ne bëggoo xanaa bëggoo kuy liggéey. waxuñu gagné dañu waxuñu woo. dama ne xam nga su ma naree votel ku dul kii yàlla na ma yàlla rey laa la wax. day gagné. Music. little bigger. borom li fi Macky def ma ñewoon fi tay ci Pikine rek di leen won réalisation yi nga xam président Macky Sall mi ngi koy def ma ñewoon fi ci juma ji nga xam moy grande mosquée bi nga xam mi ngi ko tabax fi ci Pikine en face syndicat bi la ñewoon tay di leen ko won ma leen di wax rek xaaral ma ñew and ak sama cameraman bi mu dugg ci biir won leen juma ji ana soppe sayidina Mouhamed salallahu alayhi wa sallam yi ana wa Pikine ana wa Ridis ana wa tali mak ana wa tali bes ana wa ginaaw ray sama kër mam ana ngeen

te sall lam toro bur gen e ken du yow ci mim rew xamna l'islam l'islam na ndam ana wa pigin xana legui de jaxle tu len fu ngeen wara julle julli it muy tabaski di korite ah machallah machallah l'islam na ndam sal ngaare lamtooro toro gueɗe toroxalatina seytaane fii ci dig pikin kon nak sama cameraman gëna la won rek aduna ñu gis liggey bu rafet bi bu mucc ayib bi président Macky Sall liggey fi ci pikin aujourd'hui moi je considère que la classe politique dites traditionnelles, les grandes formations politiques, font partie tous d'un seul et même système. Et ce système-là, c'est un système pour nous qui a, euh, traîne deux faiblesses fondamentales. Un, ce n'est pas des patriotes. Deux, il ne se pas de la souveraineté du Sénégal. Et c'est pour ça que nous disons, qu'il euh, il est impossible aujourd'hui, pour des jeunes de notre génération, qui veulent s'engager dans la politique,

bu ñu bëree mënuñoo choisir mais dañoo bàyyi Khalifa Sall mu choisir ñu ne ko parce que ñoom yaakaar nañ ne liggéey bu rafet lay def dañoo am euh, njot bu rafet ci moom ne ko choisiral euh, ñiy dem ci liste yi bañ ko joxee liste bi ba pare am na ko confirmé si ñoom si biir conférence bi nee na dañ ko ne sax boo choisir ba pare jëlal liste bi nga joxe ko noonu léegi ñoom man pour man ñoom dañoo def erreur mënoo choisir nit ba pare ne ko jëlal lii nga joxe ko noonu. mais ñoom ba xalifa Sall defee liste ba pare waroon nañ ko mën a ne boo paree liste bi nga jox ñu vérifier ñu xool balaa ñu koy déposé xam nañ ni Khalifa nitu intérêt la bu fekkee ñoom ñoo ko jox liste bi ne ko boo paree nga déposé ko mais bu xoolee lu ko arrangé mu def ko ci mais ñoom ñoo tooñ seen bopp ñoom Aminata Dieye ñoom Cheikh Bamba Dieye euh, am expérience ba pare ne nit ki yow déposé liste bi sans pourtant ñoom ñu xool ko mais bu ko déposé ba pare ñoom bu ñu gisul seen tur si liste bi wala mu saajul ay nitam. teg leen fa mais ñoom ñoo tooñ seen bopp ñoom ñoo tooñ seen bopp mais par contre ci liste Dakar bi dégguma gaa yi wax ci si biir conférence bi ndax Khalifa Sall moo def erreur bi wala mandataire moo def erreur wala Déthié Fall moo def erreur loolu moom dégguma ko mais ñoom proprement dit dégg naa leen def nañ conférence te vidéo yooyu xam naa léegi ñu commencé woon ñoom seen bopp def nañ conférence boo wax lu ci loolu ça fait trois heures de temps léegi conférence bi en direct la woon lañ ko def te lu bëri na ci leer parce ñoom munoon nañ toog concerté wu lu mu métti métti métti métti nañ toog ñu concerté wu mais local yi ba muy métti métti métti ñoom ñoo concerté wu ñu def ñu investir nit ñi na lan moo tax ñoom mënuñu woon toog ñu concerté wu ñu investir euh, les députés aussi non nañu waxante dëgg erreur bi ñoom la parce que choix bi ñu koy def dañoo dem ba ci biir xam ne day àndi polémique ñu jox ko jox ko Khalifa Sall mais Khalifa Sall def lu ko ne si liste yi mu déposé ko ñoom ñoo ko wax. du nag su ak yow nga daal lu toll ci quinze personnes nga ne da ngay woote waat fitna Sénégal dañu ne lu ëpp duuru Macky Sall lu fi jotoon am du fi amati ñuy diiralaat wax ci wax na dëkk lu fi amoon du fi amati dégg naa suma xarit Ousmane Sonko muy wax waxu deuxième vague non deuxième vague du Adja Ngok Adja Ngok en direct Rak Tak TV Rak Tak TV Adji Sarr Rak Tak TV di réew Rak Tak TV oh Adji Sarr ak Ngok day day day di réew Rak Tak TV la Rak Tak TV Rak Tak TV Rak Tak TV Adji Sarr ak Ngok Rakkal TV gars yi ñu ngi koy jël pour mu dugg eh eh dans sa naka naka naka sama naka sécurité bi la yaa moom sa déjà ndax yow yaa salon suite beauté massage maa ko moom euh, exercer en tant que masseuse wala nga am ay masseuse ci mm, dama ah. ma ne voilà dañuy jot euh, dañuy jot benn plainte Euh, ci plainte bi ñuy accusé ay fay yu xaw a graaw euh, kii di Ousmane Sonko. d'accord. man maa ngi tudd euh, Ami Diop. Ami Diop Ami Diop waaw. fa dëkk fii nga dëkk. fii laa dëkk waaw. Dakar nga juddoo nga laa yaroo. mais man portuma plainte kenn. Hmm. Adji Sarr sama employé la woon fii la woon hmm. léegi. Aji Sarr man maa ko boole ak Sonko.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 Il y a des pays où ils ont tellement expérimenté et compris cela. Regardez les États-Unis comparé à la France. En France, on dit un président est sorti aller chercher femme, machin, ça ne dérange pas. Pour eux, c'est sa liberté. Mais aux États-Unis, le président euh, Clinton, pour avoir tapoté seulement les fesses de sa secrétaire, il a failli perdre le pouvoir. On l'a vu aussi avec Dominique euh, euh, Strauss-Kahn. Oui, il a perdu le pouvoir. Alors, donc, aux États-Unis, par exemple, il faut avoir une moralité avant qu'on ne te voit. Si ta femme ne témoigne pas que tu es un bon mari, si tes enfants ne témoignent pas que tu es un bon père, aucun Américain ne te votera. Parce que tu ne seras pas un bon père pour la nation non plus. Parce que tu ne défendras pas des valeurs. Un homme doit pouvoir défendre des valeurs. Nous devenons des animaux parce que nous sommes tenus par le sexe. Moi, j'ai mal quand je vois quelqu'un responsable qui entre dans un lieu avec une petite fille de rien du tout qui n'a même pas l'âge de, son, de ses enfants. Mais attendez, qu'est-ce que ça veut dire que ce soit l'homme, que ce soit la femme, c'est une irresponsabilité morale et, intellectuelle et, spirituelle. Qui peut jouer sur euh, les enfants, les enfants, les sur les biens, mm-hmm. sur les investissements. Vous savez, la saleté, la saleté. Lorsque tout est pur, on évalue, on évolue dans un domaine, j'allais dire spirituellement pur, physiquement pur, vous ne pouvez pas échouer. Vous ne pouvez pas échouer. La vie est difficile, certes, on travaille, certes, mais je l'ai expérimenté. Donc il faut une discipline sexuelle. Il faut une discipline sexuelle et morale. Et c'est ça qui va vous permettre euh, d'obtenir, en tout cas, euh, de bonnes affaires. Mais bien sûr, mhm. bien sûr. On peut vous parler de vous dans le monde, en bien comme en mal. Vous pouvez être populaire. Vous êtes populaire dans le mauvais, dans le mauvais sens et vous êtes populaire aussi dans le bon sens. C'est à vous de choisir. Sonko maa ngi lay nuyu Sonko heure boo wootee ne ñoo leen ñu dee kaale ñu ànd dem riir seetu président Macky Sall palais génne ko pale xoola 14 personnes yi dee woon Sonko te nga woote woon combat bu mortel yaa ko waxoon ana personnes yi dee Sonko ana seen yaay seen famille pourtant yaa ngi continuer di woote dee sa ndey deewul sa baay deewul sa mag deewul sa frère deewul. jour bi ngay woote dee buñ waré pour jóg pour dee da ngay dem dinkani say mbokk dinkani say dom dinkani say rak dinkani ci say ay ba duñ dee ah yow nga bëgg jël domi jaamur di len ray ba nga wootee dee bañ bañ bañ tëj la ci kasso bi ba ñoña dé dee ba nga génné wa yana mar nga séti demo séti mori suñ président de la république nga xamné mom dafa yor xol jullit di def yefu jullit képp kuy victime président Macky Sall dem salaamaaleykum maa ngi leen di siyaar leen bëggee xam nga lu xam yow Ousmane Sonko bàyyil bu ne bi leen lacc ngaan ay booy wàcc leen ci mbedd bi bàyyil bu ne ceeb bi sabu sukar rek nga ne wàcc ci mbedd bi yow Ousmane Sonko yow yaa ñu moom wala qu'est-ce qui se yow nekkoo fi yow kenn Sénégal ay doomu jàmbur la bàyyil doomu jàmbur yi ngay wàcc ci bu jabar da leen jël seen doom yi di téye seen loxo yi di génn seen doom yi di di seen loxo yi di leen di ànd ak ñoom di julli ñi di sénat di ko dugal ci réseaux sociaux yi da leen def noonu su heure xeex jotee bàyyi baaxul yéen mu leer leen ngeen am si problème seen biir ngeen war a jàkkaaroo waxal dëgg seen biir ñi leen ko ngeen toog di raayante moo laa moo gën lu wax dëgg la yaa dama si dorange bu rax la Karim Gueye wax na ko mais bàyyil doomu jàmm yi ngay wàcc loo ci mbedd mu woon nit ñi sonal nga ñu trop fàtte nga ñu. waaw sama gars yi ziar naa leen bëggee leen safoo leen waaw yow mi nga xam ne ni yow yaay woote pour nit ñi génn reyante ñëw ñu dee yow da ne da ngay génne président Macky Sall yow kese assumer ses responsabilités comme ni nga ko waxee nga dem génnee ko pale mais benn jeune ñëwul pour dee nit ñi seen yaay da leen naa yaakaar. nit ñi dañuy liggéey di dimbale seen yaay tey ku fi dee quatorze quatorze personnes yi dee ana lan lan nga jëriñ seen waay. man dama ne Sonko ba xam dafa am téere bu muy essayé Sonko laa wax ma ne dafa am téere bu muy essayé quoi non man gis muy wax nii ki def discours bi nii kii dugg ko ma xamoon de non seulement sax maanaam confiance bi nekkatu fa maanaam sérénité bi dara nekkatu fa. mune boy ni parce que gis nga ni dekk bi nit ñi mer nañ waxu saati waxu rayante nit ñi ngi ray nangam nangam nga xaar nga profité wala boko waxe gaay dañuy gennale après yëngal encore des innocents ñu déwat encore nga né ñee ay poste mo leen intéressé mais yow la mo leen intéressé yow la mo tax nga bëgg xex tek sa bi ni lan mais poste barki yalla bu lo poste jaral won yi du ko jaral bu ngi top parce que yow du du façon bii du mooy façon buy defal Sénégal da ngeen fi indiwaat ay dee yu bari rek sonal ñu ba pare doo leen dee barki démb bi dinaa rek ci oto nga dugg yi garde yi wër la déggoo ma de garde la wër si oto bi bu ñu génnaatee noonu lay demee xale yi ñoo fiy deewaat kenn ci yéen du gaañu du xoos xale yi deewaat au nom de bakkan bi fii faat benn bakkan bi ciy de nga ne yow yaay nga ne yow senegal fofu la tollu te loolu moo koy lijjanti fitna boobu nga bëgg a yee fi loolu du fi am day lay xam ba xam ma ne yow kan moo ëpp baatin yow wala kan moo ëpp gëdd si dëkk bi yow xaaral nga am looy essayé téere booy essayé mais yow la mooy sa problème la mooy sa problème bëgg defar dëkk bi dafa jar teg sa bakkat dama bëgg nekk bëgg nekk président dama dama leen bëgg defaral dama leen bëgg jàppale defaral leen jar na mais jarul rayent koo xamante ne yow sa yow war a mën a sa kër yi nii yére sax pour nga sol ko sa problème la dañ koy seet di ko seetal est-ce que livreur dugg sa kër sax yow saa yi may wax ak yow. affaire it yaa ngi fi fees dell dell dell di provoquer accident yi di fas ci sikkim yi di taal kër yi te kenn xamul fu ñuy mujjee ak ñun maa leen ko wax te dama leen di gis moo tax. damay xuloog ñoom reyanteeg ñoom bëmax nañ ma fi ba ma daanu ci taabalu weer yàlla ma defal sutura te ka ñu àndal ci ñun la bokk waaye ba muy liir lañ ko fab yóbbu yar ko ba mu léegi boo ko gisee doo ko xàmme parce que lii xew jaaduwul lii xew fii jaaduwul jaaduwul boo seetloo xam yàlla musal Sénégal dëkk bu metti la boo waxee ñu ne dafa dëgër boo waxee ñu ne wax ji neexul ñi nga xam ne tank ki yor bant ki yor yet gi tank mu yor yetam di dóore fiñu tok duñ fu duñ fa bu bouger duñ wax de waye ki ñi dóor bu fiqato rek ñu ne ngi ni may wax yeen jeunesse su senegal bu len deglu ñoo yeen intellectuel Sénégal yi bu len deglu ñoo yeen transporteur yi commerçant yi yeen euh, diaspora yeen keneen ak keneen bu len deglu ñoo parce que rew mu musa bax rek dafa am génération bu jël responsabilité foo dégg ñu ne révolution dafa am ñu jël seen responsabilité. feebar bi nga xam ne moo gën a metti feebar buy daj bu doomu aadama di di di di làmboo ndax koo fekk ku añaan waxtu wu nekk rek mu ngi am lu ko naqadi ndax lan kim añaanee bëgg wërsëgam deñ kooku waxtu wu nekk yàlla daf koy dimbale di ko jàppale moom it tamit waxtu wu nekk dafay gis ci kooku doo dooleeku. bu ko defé dole gum gis rek daf koy gëna naxali billahi wallahi sonko dem moog jabar gi xex ba fa xeex ba bët set lañ lañ fanane mi ngi ni moog jabar gi démb ana usman dégg nga baax li may wax moog aana jamanko démb xex lañ fanane bët set xam nga waxon na len ni usman Sonko li ko fi indi du mbiru politique je vous l'ai dit li ko indi ana xam nako usman xam nako man mi xam naa ko rendez-vous ba woon démb tax na ba mu ñibbee wallaay asim la wax nii Sonko dégg xam na ko baax a baax daa fanaane xeex ak jabar ji ba bët set jot y a eu un voisin qui a de les séparer moo waral gis nga àqu ay Mimi Touré yii ngay ñàkkee teggin ay Macky yii ngay jaay réew ne ndekete yoo tekki woo dara si néeg maam si film waxoon naa démb radaar yu garaaw laa kii kii démb ci guddi ba mu paree kañ la commande presse am démb la wala barki démb ba mu paree commande presse daa ñibbi fanaanee xeex ak jabar ji ba bët set wallaahi la ajib parce que dama publication ma ne leen Sonko politique indiwu ko Dakar li ko indi xam naa aana xam na Sonko xam na billaahi wallaahi watallaahi moo waral nag démb xeex la fanaanee ak aana ba bët set li may wax dina ko dégg dina ko xam boo jógee jàpp Macky def ko morom boo jógee jàpp Mimi Touré def ko morom boo ñibbee sa ñu tong tonge la doo fanaan à l'aise finalement leer na ma ne bu xëyee avant mu dem Ziguinchor il ira encore à Sébikotane parce laa may parce que est-ce que aada découvrir loo xam ni Sénégalais découvrir luñ ko Sonko xam na aana xam na man xam naa ñett a xam quinze millions Sénégalais yi xamuñu mais daal xam naa démb daal kër góor gi xumboon na lool travers euh, le, le plus puissant, euh, comment je dis, euh, État euh, technologique, c'est-à-dire incarner la plus grande puissance technologique, militaire et économique, moi, États-Unis, en opération, le Sénégal n'a pas bougé d'un iota. Obama Obama demain, Justin Trudeau ñëw avec la même proposition indécente Il dimbali na Macky Sall qui yar ak teggin mu gàntal on n'a pas bougé d'un iota. te naataangoo Audrey Pulvar ou itélé ndax ñoom ñëpp dañ leen yóbbu ñëwoon na accentuer la pression Néko, ko ah Sénégal yi ñu góorgóorlu ci démocratie et cetera waaye su ngeen xaw a sooxee rek mooy borom ñaari tur yi joxaguñ leen seen àq ak seen yell Macky Sall góorgóorlu tontu ko tontu bo xam ne wax dëgg yalla xel man na ko ndax nangu nee au nom de quoi parce que l'homosexualité a été légalisée chez vous, au nom de quoi pensez-vous qu'il faille en faire une loi universelle ainsi de suite ba en train d'arriver au Madagascar taxul ñu nous de parce que ça pas naataangoo Franck Simonet pour TV5 revenir à la charge là euh, Macky a été un peu plus ferme nee na euh, ayez la modestie vous, en tant qu'État souverain, de reconnaître aux autres États souverains. vais la poser une question nag Bilal, bi laa la Rodriguez Rodriguez ndax xam nga ko tey naa la Bilal. Si vous avez nga yi vous avez dajale nii yëpp wallaa la dem dossier la ci yow pour vous dire juste xam naa la xam ñi ngay fréquenté xam la fa ko doon jëfee ba ba ngay daw di ci Rodriguez ni, la mo tax doon daw top ci ginaaw donc papa la laa yóbbante wax ji ne da ci am ñaari mbir yo xamni ne Sénégal ñu fi war a dara bu Ousmane Sonko parce que japp nañ Ousmane Sonko day nek ministre ñu bëgg fay nek def nangam sangam Pape ala nga la wax lan mo tax ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent, ça les engage, mais ils n'ont pas la liberté d'imposer aux autres ce qu'ils sont. Voilà le problème. Qu'ils soient homosexuels, c'est leur problème. Mm. C'est pas mon problème. Moi, j'ai pas de problème parce que. Ça peut ne pas être un problème du tout d'ailleurs, hein, ni pour eux ni pour pour vous. Nous avons notre code de la famille, nous avons notre culture, nous avons notre civilisation. Il faut que les gens aussi apprennent à respecter nos croyances. amaguloo xëy takkagoo jabar amagoo kër amagoo oto yaa ngi dëkk ci jaaxle sa ndey ak sa baay daj ci yow lu ne nga bëgg a jóg xeexali ka nga xam ni fat na ndeyam ak baayam dëkk ci kër gu set ñuy bës tànkam te du wàcc njoowaan li te du jóg ci uppukaay. kooku bu doon gor boo ko dajalelee lu moom la ñuy am Pape ba mu wootee ne mag naa la yónnee crédit naa la ñuus Pape man du ma sa morom Pape mënu ma la ne kañ jàppale président Macky Sall nga ne ma jàppale woo ko mënu ma la kañ dem liggéey nga ne ma liggéey ko Ousmane Sonko ngay liggéeyal di wër wax nekk ci internet bi matin soir ñun booy APR gis nga dañuy xëy dem liggéey bu ñu wàccee nekk ci internet bi yow nag Xadim Mbaye yow Xadim Mbaye yow yaa gën a yow Xadim Mbaye gi jigéen day am classe jigéen day am personnalité man nobuma la ragaluma kaa wax Sénégal yëpp di ko dégg xade bay ndamo na la ay jamono ay jamono ji ba nga ba nga bokkee pastef man la la bàyyi nobatuma la sama xeetu parfum na boko tudete nga sa parfum bi nga yor ni dafa neex na la ñuus lolou doy tol nga naan man damaa bëri tiitar nga naan wi Moodu yéen da nga bëri tiitar mais comment c'est la première fois et dernière fois man ku bokkul APR nobuma la nëbatuma làqatuma ma xale APR yi ma saf ñoñ la nop ñoo tax may rente di ñak ni di sol tenue travail nek ci mbedd bi di jël ay parfum cher ma demaan foofu pour maase wu ci salon bi laa leen di fekk ñu toog ma nuyonteeg ñoom dugg kon moom mi ne moom amul taaw comploté moo wax sénégalais yëpp ni ki ngeen dénk réew mi mu ne mooy président de la république ci day wàcc ba ci caniveau yi di comploter contre ses adversaires politiques ci nu mu gën a ñaawee ci politique la xewe ci jongante la xewe fan la xewe sol sa capuchon yolleeku guddi ñëpp tëdd couvre-feu état d'urgence nga dem fenn ñu dàmp la foq say yax après ñu jiiñ la fa leneen dinañ fa jóoru kooku plainte la lan la amee politique. mais munoon ban la amee politique. nit ñi dañu war a respecter les ñàkk fayda weesuwul nga def tooxi doone ba ñu jàpp la amoo la lu daal kii moom a piégé kii moom a galgal ak nangam. islam. ak lu tax mu dem fa nga laaj ndax dafa ne dafa feebar mu wane ab kayitu ordonnance ni dañ ko digal kinésithérapie charia lum ci wax mooy dafa xaraam ci bépp fànn ndax ku ku dëkk ci réew mi am culture tuuti xam nga ni salon de massage boobu du salon de massage kinésithérapie waaye ay caay-caay kese moo fa nekk ay xale yu jigéen yu dem ubbi seen salon amuñu benn diplôme kinési Euh, seen publicité yi nga xam ne ñu bëri man ci taalibe yi ak euh, parce que ñun ay nitu diine lañu dañuy gëstu tamit ndax du ñu tëb rek wax euh, lu ñuy publicité seen salon mooy ñëwal summeeku ba set ñu toppatoo la ba ba nga am mbégte wax yu ñaaw yooyu xal képp ku ko publicité ci dëkku diine dëkku charia dañ la war a jàpp ci bës boobu tëj la kaso duma la juróom-ñaar fukki yar yu métti yar la yar yu métti loolu mooy atte bi ci charia ki fa dem ak ki koy def yépp la ñu war a jàpp duma leen duma yu métti bu dee dafa ne am na ustaas bu ko ko digal yaakaar naa ustaas boobu bu dee dafay ànd ak moom ustaas bi war na di wax dégg ustaas ba juum na ba ci kanamu yàlla ndax xaw ma ban école la jàngee ci ban idéologie la ko teg waaye teguwut ci mazahibul arba su ñu waxee mazahibul arba mooy ñeenti école yu lislaam sukkandiku lu dut ñeenti école yooyu koo fi tudd ci école rek lislaam reconnaître ko sukkandiku diine yépp Afrique Asie Amérique ci continent yépp weesuwut ñeenti école yu mag yooyu mooy imam Malik imam Hanbal imam Shafii ak imam Hanafi ridwanullahi alayhim ajmain te lii buñ ko waxee dafa nekk loo xam ne ala ittifaqul ulama wal jamhur bépp borom xam-xam bu musa wàcc ci kaw suuf ci diine accepté nga ñeent ñi gannaaw biñ feeñee ñi kenn waratul sukkandiku du dudut ci ñeenti école yi moom la alamu islami bi yépp nangu keneen ku fi ñëw nag bees la te defagu fi ñaar ñeenti téeméeri at te yooyu kenn du ci sukkandiku imam boobu ko digal loolu imam bi juumloo na ko ba ci kanamu yàlla bu dee imam bi la ci moom la sukkandiku te moom it culture générale am ci suñu gis-gis yaakaaroon naa ni waru ko may muy juum juumte gu rëy googu. aju mi ngi naan 31 décembre 31 décembre. Sonko taxawul ci kër gi. 31 aju fekk ko fi. 31 décembre la ko fekk si kër gi fii mais waxal lu mu def. jour boobu aji def na waa damay dem suñu kër. Ah, moo tax mën a fekk ko fii nag. dafa xëy suba teel ne ma damay dem suñu kër ma ne ko yéen moom 31 décembre kenn mënu leen liggéeyloo seen famille ngay dem mu dem. aji hmm. ñëw 31 décembre ñëw mu xool mu dem ba si premier ba si deux bi aji doog a ñëw si kër gi. te dégg naa si nit ñi ñu ne aji 31 décembre lañ ko njëkk a violé ñaari yoon suba lañ ko violé si kër gi. xanaa loolu moo nekk ay fen te aji ma xamal leen benn affaire. aji dafa mën a duul mën a duul goo xam ne nii. 31 décembre laa accouché maa ngi accouché benn hôpital bu ñuy wax Gaspard Camara. aji Sarr ma bàyyi ko su kër ga 31 décembre laa fa bàyyi si guddi parce que bi ma amee doom foofu dinaa daal ñëw sa kër ga nag léeg-léeg di sangu di ñëwaat ci hôpital bi léeg li ma bëgg a wax mooy lii ab complot la. ak ñeme yàlla. vraiment nit ñi dañu war a respecter les Sénégalais ñàkk fayda weesuwul nga def tooxi doone ba ñu jàpp la amoo la lu daal kii moom a piégé kii moom a galgal ak nangam nangam. nit ñi dañuy fen ba far gëm gëm seeni fen. <laughs> Macky Sall defe naa dafa gëmul yàlla moom ci boppam. ragal yàlla mooy ñàkk teg sa tànk Sweet Beauté loolu mooy ragal yàlla dëgg. <laughs> man ba may nekk gone ba fii ma toll nii. ma ànd ak ay jàngoro. yoo xam ne dafa laaj faju mën a faj. moo ma jaaxal nag. dootuma laay man dootuma wax lu bon ca Macky Sall pare naa ba xam yéen yéen ma moom wala yéen a ma jënd wala naa rama jox leen ma audio ay fitna ak ay jafe-jafe rek lañuy indi réew mi ni ngeen ma mën a laajee jox leen ma audio yi nit ñi dañuy fen ba far gëm ba far gëm seeni fen <laughs> loolu c'est mooy le mensonge pathologique nit day dem ba day day yegg ci niveau fen niveau boo xam ne moom ci boppam day gëm fen yi problème mu àddina bépp loo rekk la. maa ngi wér gu yaram gu mat sëkk canceru ah ci ci lu ma yëgul jabetu ma aw ma insuffisance rénale aw benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah. yàlla daf ma nattu ba may nekk gone ba fii ma toll nii ma ànd ak ay jàngoro yoo xam ne dafa laaj faju lima man lima gis muy ko dégg ko muy direeku gisuma ko teguma ko bëtt lima dégg muy ko man man dragon la ci man. mana leen ma dégg mané ko président Macky Sall Macky Sall la koy wax parce que légitimul. dangay waxtaan président Macky Sall mooy lii su ko. noyyee fenn nañ ba nëpp fenn rek pour jël réew fenn Ousmane fen fenn na ba nëpp. billaahi wallaahi talaay te bu ñemee.